ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci turi sëriñ bi di leen tatagal fii ci Medinatu Cheikh Ibrahim Niass xam nañ ne li tax ngeen ñëw fii olof yi dañuy wax ne kóllëre gannaaw lay féetee waaye ku nekk xam na ne seen ñëw bi ñëwi feddali kóllëre la parce que mu leen ngeen wax ne amuñ jot waaye li tax ngeen ñëw fii ñun ñëpp ñu ngi koy rafetlu te xam ne dëgg dëgg xam nga gentleman gentleman rek la mun a nekk dafa am loo xam ne moom mooy jukkoo li sëriñ bi di wax gentleman te loolu ngeen def tey amu leen ci benn gêne amu leen ci benn kersa amu leen ci benn rëy mais da ngeen gis ne dafa leen a war ngeen koy def pour surtout nag pour liggéeyal sa réew ak gis sëriñ bi tamit gëdd bi nga xam ne yàlla jox na ko ko ngeen ñëw pour delloo ko ko devant tous les Sénégalais sëriñ bi nag ñu ngi sant yàlla bu baax ndax respect bi nga xam ne daf koo am ci doomu aadama respect boobu àddina bi yëpp teg nañ ci seen bët te loolu fi mu ne àddina bi yëpp seede nañ ko ci taxawaayam ndax daf fee nekkoon ak Mawlana Cheikh Ibrahim mu nekk waajuram mu koy jàngal di ko yar di ànd ak moom di tukki partout à travers le monde ba mujj gi sax mu dénkoon ko président Nkrumah Kwame Nkrumah bu Ghana mu nekkoon foofu ci pale bi di jàng di di ko conseiller di jël ay conseillers ba nga xam ne jëlee na fa benn expérience boo xam ne ci côté diplomatie ak ci côté politique ak ci côté religieuse yëpp alhamdulilah yàlla may na ko ci may may bu yaatu macha allah. léegi nag li nga xam ne ci la ko bàyyaroon muy liggéeyal àddina bi bi mu dafay nekkoon ci ron ay magam xalifa yi fi passé yépp waaye mu nëbb boppam amee yar ak teggiin lu xew rek mu ne nañ dem ci xalifa bi di leen dimbale di ànd ak ñoom ñoom tam ñu bëgg ko lool di dimbale moom ba yàlla def tey mu nekk xalifa mais bi mu nekkee xalifa lim wax mooy maa ngi digal sama gouvernement di digal opposition bi di digal sama jeunesse si réew góor ñeeg jigéen ñi moo ñoom ñëpp ñëpp nañ xam ni politique politique la mais du affaire yi animosité politique mooy koo xam ne dafa bëgg a liggéeyal réewam rek pour réew mi naat pour ñëpp kontaan moo tax ku fi ñëw dana la accueillir dina la wax dina wax ak yow dina la digal ubbi buntam bi loolu nag Afrique bi nga xam ne yàgg na fa dem liggéey ñoom dañoo naw liggéey moo tax gis nga boobu ba léegi ñu ngi koy éviter réewi Afrique yëpp dem na fa bu yàggu rek la jógee Cameroun te tukki yim def ci biir Cameroun yu ci bëri jël na ay oto dem ay six cent sept cent kilomètres yoo xam ne yëpp daf ko dugg oto rek pour dem gis ay màggat yoo xam ne xam na ne mënuñoo agsi ci moom ak ay jigéen ak ay xale yoo xam ne yëpp di rek la doxal moo tax mu nangu loolu mais mënoon na wax sax ne am naa ngànt kooku nag mooy suñ sëriñ mooy suñ xalifa mooy ki nga xam ne du sono kenn ndax euh, kenn xameewu ko laaj dëkk bi nag am nañ ay soxla yu bari waaye doo gis mu laaj mukk comme li Baraam Seck wax léegi nit ki mooy dem rek ba gis ne lii war na Madina waaye léeg-léeg nga gis sax xale yi dañ daan wax dañoo bëgg a manifester dañoo bëgg a def nii waaye su ñëwee daf nañ leen di eh dem leen ngeen jàngi dem leen ngeen góor góorlu te xam ne àddina jeexagul loolu nag mooy li nga xam ne loolu la yar ci xoli nit ñi da ngay dem sax ba famee Madina dañoo ñàkk euh, bopp fekk dégg ndigal rek mooy li nga xam ne loolu lañ topp ci yar bi nga xam ne yar nañu ko mais mu ngi am ay soxla yu bëri am ay ambition yu bëri yoo xam ne am na ay président sax Afrique président Nigéria moo ci mujj moo xam ne ñu ngi koy jox ay proposition yoo xam ne pour def ko ci dëkk bi la waaye def na leen man dama am sama réew donc ku ñëw pour dugg ci réewi jàmbur waroo tëb rek engagé nii rek waaye lu ne dafa am yoon loolu nag li muy wane mooy respect bi nga xam ne am na ko ci réewam kooku nag su ngeen ñëwee fii li muy wane mooy seen ñëw bi mooy dëgg-dëgg xam ngeen ban gëdd la am ngeen jox ko bi ngeen nekkee ci gouvernement bi ak après yëpp bougé wu leen yéen a ngi taxaw fi ngeen taxaw rek gis ne li gën a am solo mooy doomu aadama nit ak respect nit ak respect boobu ngeen gëm moom moo leen indi fii ci moom moo tax ñu ngi leen di tatagal bu baax di leen wax ni sëriñ baa ngi nii tëjut tëjut boppam bañut kenn weddiwut kenn waaye ku ne dafa am ci yow respe mais ku ñëw rek dina la digal li nga xam ne loolu la xalaat pour soo ko defee mu jëriñ la soit ci sa jàng wala sa liggéey wala ci sa politique lépp rek façon nit bu nee def fii ñëw waaye ku ñëw rek daf lay digal ñaanal la yàlla kooku nag mooy Cheikh baax yi mi nga xam ne dëgg-dëgg ñun ñu ngi koy ndamoo bu baax ñu ngi kontaan ci moom benn bés benn waaye ne ko man dama dégg benn xale bu tuuti di la wax ay wax yoo xam ne mu ne sant leen ya mu ne xale bi santal yàlla comme yow wax loolu yow santal yàlla xale bi ne alhamdulilah donc kooku am na dépassement boo xam ne li nit ñi di wax ak li ñu foog yëpp dund ko moom li muy dund rek mooy yàlla ak alxuraan mu ngi jàngale mu ngi firi alxuraan mu ngi yar nit ñi mu ngi leen di tarbiya mu leen di ñaanal addina bi yëpp Afrique yëpp ñu ngi koy oo bi mu demee nii sax am na ay réew yoo xam ne ñu ngi ko oo di di profité. naan ko dañoo bëgg nga ñëw parce que accès go ci ñun te wër yaa ngi wër sous région bi yëpp waaye mu ne leen ñun man dara dépendre lu ci man waaye lépp mu ngi euh, dépendre rek ci li yàlla dogal waaye lépp lu yàlla dogal rek dinaa ko def pare naa pour dimbale ñëpp parce que Cheikh waa wa waajuram mooy ki nga xam ne dafa arrêté ay guerre yu bëri la guerre de Biafra bu Nigéria boobu moom moo ko arrêté woon ci jamono Senghor mais biñ ko laajee def ne Senghor moo ko président Senghor moo ko def parce que mooy sama président respecté naa président bu fi ñëw ma respecté la parce que dama am njaboot te njaboot gi tamit dama bëgg ñu am jàmm waaye respecté naa aussi képp koo xam ne mu ngi yëngatu ci politique pour dundal Sénégal dinaa ko jox gëdd bu mag ba nga xam ne ñoom ñëpp kenn ku ne dana gis boppam ci mag loolu mooy taxawaayam lépp lu ñu wax ci journal ak ci rajo lu nekk lii daal moom mooy taxawaayam moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax di leen tatagal di ñaan yàlla ñaan yi fi sëriñ bi ñaan yàlla nañu ko yàlla nangu parce que ñëw fii rek dèjà njëriñ la waxuma laa ñëw nag mu janoo ak yow di la ñaanal yàlla salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf mbooloo mi sëñ bi maa ngi lay nuyu di la ziar di am mbégte ñëw fii toog ci sa pegg maag ñi ma àndal ñëpp duggulee di jàgg nañ fi ñëw ndax ñëw ci kër baay ngëneel la yokkute la kàddu yi may njëkk a yëkkati nag kàddu njaal la ndax fan yi weesu yàlla dafa dogal kenn ci kër gi wàññeeku boobu yaa ngi bitim réew muy sarak loolu nag ci àdduna la nekk kon buñ fi ñëwee kàddu yi njëkk a yëkkati mooy sant sunu boroom jaale la sarak di ñaan yàlla mu xaree ko àjjana bi mu ñëwee bii loolu di am dafa la fekk ci mission yàlla defal la suutura defal ko senegaal ndax fa nga nekkoon lislaam nga doon liggéeyal tànk yi nga xam ne sa waajur bu tedd wi moom la doon dox nga dox ko ci réew mu xaw a sori Sénégal ci jamono bu lëj yàlla defal la ci ndam maanaam yokk islaam gën a yee nit ñi ci islaam bu la ci yàlla defalee ndam ñun dañ koy sago en tant que jullit sago ko en tant que doomu senegal ndax mission yu demee noonu dëgg la mësuta yomb waaye ci jamono tey jii la gën a jafe xam ni jamono mën nañu wax ni yàqu la gën a jege ka defaru ndax fi xam-xam toll ak ni nit ñi di doxalee kon sëriñ bi yàlla nañu la yàlla fayal amiin bàyyi la ci sunu kanam ba mu yàgg ndax boo liggéeyee lislaam ci lañ bokk waaye boo dee doomu senegaal liggéey ko muy jariñ islaam te di sagu Sénégal kon sénégalais bu nekk war naa jàpp ni moom nga ko defal moo xam nag ku bokk ci diini islaam la walla ku ci bokkul ndax lépp loo xam ne day yokk réew mi lépp lu yokk askan wi Sénégal yëpp a ko bokk kon yàlla nañu la yàlla fayal mu doon ay tànku ziyaar tànku taataan ci sa barke ndax niñ ko waxee léegi man di gisuma ci doomu Sénégalais yi koo xam ni buggut a togg ak yow waxtaan ak yow ngir xam-xam bi la yàlla dénk boo dee waxtaan ak boroom xam-xam nag njariñ la dana la jariñ tey dana la jariñ ëllëg dana la jubbanti it ndax àdduna tey bi juum fi dafa yomb wàcc fi yoon it dafa yomb li la ciy dimbali rek mooy di waxtaan ak borom xam-xam yu rafet yi rawatina mag mu mel ni yow muy tànku ziar ginnaaw xew-xew yi fi am yëpp dëgg la ñëw naa fi en tant que ministre ñëw naa fi en tant que premier ministre waaye ni ko Barham waxee léegi diggaale naa kër gi en tant qu'étudiant dëgg la bi ñuy sanc Rabita maa ngi taxaw foofu moom yàgg nañ fa añee yàgg nañ fa reere yàgg nañ fa jàng yàgg nañ fa toog di ut xam-xam kon li nga xam ne Baye liggéey la ko senegal njabootu Baye yàgg ñu ko woon gëmuma ni am na ku nekk ci biir Sénégal wala ku nekk ci biir Afrique wala sax koo xam ne yaa ngi ci àdduna te amu ci loo xam ni dina la jariñ biñ fi ñëwee ñu doon jëm ci élection yàlla dogal li mu dogal ñu ko ci sant nag bu baax a baax a baax ndax lu nit di ut rek jàmba ko gën bi muy campagne it am na baat bu ma doon wax xëy na ñu daaw ñu ko déglu. mooy dama doon wax yàlla nañu yàlla may jàmm ju mot sëkk. daaw ma yaram rek ci yàlla nañu yàlla may jàmm. jàmm ju mot sëkk. ndax dara mënut a defaru. dara mënut a baax. surtout lu mel ni réew mu mel ni senegal te xam ni mënuñoo tàggoo. ala kulli alin ñoo ko bokk. ala kulli alin dañuy ànd. te ñun ñëpp ay mbokk lañu kon lépp lu ñu mënti ut moo xam xam-xam la moo xam alal la moo xam leneen la bu ko jàmm lalulee rek loolu du rafet walla amin biit boo ko amee xëy na mbégte bi ñu ci waroon a am doo ko ci mën a am sëñ bi bu ñu ñëwee ba toog ci sa wet dañuy njëkk a ñaan mooy nga ñaanal Sénégal am jàmm. Hmm? ñaanal ko doomu senegal yëpp. ñaanal ko it képp koo xam ne yaa ngi dund ci biir senegal waaye bu dul Sénégal sax képp kuy doomu aadama. war nañ laa yéene jàmm. ndax yàlla ku mu sàkk rek. war ngaa mën a amal njariñ askan bu nga bokk war ngaa mën a jariñ fa nga dëkk. kon xew-xew fi amoon yëpp ñun dañ cee sant suñu borom bu baax na waxuma ko it pour rafetal waaye dama koo wax parce que loolu lay dund ndax buñ la yaree ci diine boo jàppee ni def nga li nga war a def la ci des a nekkatul sa responsabilité lay sa responsabilité mooy la nga war a def boo ko defee ba mu mot li ci des nga bàyyi ko ci loxo sunu borom bu nekkee da nga gëm ñun ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu ñu continuer di gëm ndax loolu moom moo ñuy jox capacité jox ñu doole jox ñu it bëgg-bëgg ak yéene la nga xam ne sàkkoo nañ ko démb di ko sàkku tey la nga xam ne yéene woon nañ ko réew mi démb ak barki démb tey lañ ko ko gën a yéene moo xam ci jëf la moo xam ci wax la ci anam bu mu gën a rafetee incha allah dinañ ci taxaw ba mu mot sëkk ba rafet xëy na nag bi yëf yi paaseeg léegi jàppoon naa ni toog dallu loolu bokk na ci li gën a dimbali réew mi ndax bu nekkee réew dañoo bëgg a nekk rek ci campagne électorale boo xam ne buñ ko tàmbalee du jeex liggéey du ci am place te nag la gën a jariñ réew mi dëgg la politik bokk na ci waaye it liggéey da cee bokk kon day am jamono joo xam ni féetewoo noppi bokk na ci li nga xam ni jàpp nañ ni moom mooy jàppale mooy ku nekk ci la nga war a nekk nga nekk ci ku nekk la nga war a def nga def ko ba waxtu bi nga xam ni lañu def mën nga cee wax nga wax ci walla war nga cee wax nga wax ci loolu incha allah tànk yooyu la ñuy fas yéene taxawe di ñaan yàlla it ñu mën di fi ñëw bës ku nekk di waxtaan ak yow di waxtaan ak askan wi tàllala suñu loxo pour ñaan lii nga xam ne ñu ngi koy def te soxlawuñ ci leneen lu dul jàmmi askan wi jàmmi réew mi yàlla defal ñu ci barke ndax kooku moom domaine la moom mooy xool la nekk sa biir xol na ko bëggee mu xool nam la koy defalee daanañu faral di toog ci ay ndaje xam na ne Cheikh Omar noo ko fàttaliku wàllu Zahra wala Ndey Sali bu ñu waxee ba pare ku nekk di wax dañoo war a def nii dañoo war a yéenante jàmm ma leen nañ ñaan ñaan bi gën a gàtt mooy ku nekk yàlla na la yàlla fay sa xol ku ko mënul wax mënoo koo dox am na leneen loo denc lu dul liy génn ci sa làmmiñ kon nit ñun it ñu ngi continuer di ñaan loolu di ko ñaanal Sénégal yëpp ku ci nekk rek la nga denc sa biir xol yal na la ko yàlla fay ndax loolu moom mooy tax li nga xam ne dañ ko bokk muy Sénégal yàlla jëmale ko kanam ndax ku nekk ñun xëy na sañ nga bëgg ngaa am ku nekk ñun yénee nga sa njaboot lu baax waaye boo ko yéenee sa bopp yéenee ko sa njaboot boo ko yéenee askan wi yëpp day daal di mot daal di rafet loolu moo doon tànk yi nga xam ne moo ñu fi andi woon tey bugguma woon nag génn ci réew mi di wax te dewuma ci kilifa diine yëpp dewuma ci kër yi ndax Sénégal dafa am nu ko yàlla tëgge lu ñu fekk la li ñu fekk nag ba bëggee mu dox rek da nga ciy jaar boo ko yokkul bu ko wàññi man loolu laa jàpp. Hmm. loolu laa gëm. dëgg gëm naa ni kenn mënul tabax Sénégal lii nga xam ne yéene nañ ko Sénégal muy émergence te yéen ñi nga xam ne yéenay kilifa diine yi yéen ñi nga xam ne yéenay kilifa aada yi boolewuñ leen ci ànduñu ceeg yéen man de gisuma ci àdduna bi. réew mi nga réew moo xam ne tey ñee nañ ko te amul li mu am te sukkandiwul ci ay aadaam ak i baaxam man gisuma ko gisuma kenn koo xam ni jéggaa nga leneen ba mën cee def loo xamante ni moom moo gën gën a rafet gën a taaru gën a gaaw li sa aada santaane wala li sa diine santaane loolu moo tax jàpp naa ni tàmbali lu nekk mooy ñëw ci kilifa diine yi tàllal leen loxo waxtaan ak ñoom ndax ñoom ñun ñëpp lañ jaboote boor boo mënti nekk ñoom dañ laa jaboote buñ la wax rek da nga xam la nga xam ni moom mooy seen soxla te du seen soxla bopp mooy soxla askan wi foo nga xam ne jàpp nga ni boo fa jaaree saafara ko dina gën a gaaw dina gën a rafet dina taaru te dina neex ñëpp loolu bokk na ci li nga xam ne jàpp na ni ñu jéego yi ñu war a dox rek bu ñu jàpp nañ mënuñu cee am ndam walla am ci barke te ñëwuñu toog fii ci sa pegg déglu la tàllal la loxo bu ñu génnee nag la nga ñu digal la nga ñu sant doon la nga xam ne ci lañuy sukkandiku pour la nga xam ne jàpp nañ ni buñ ci doxee wala buñ ci waxee mu saafarawu ci loolu la ñuy sukkandiku moo xam lu ñu wax la ci mbooloo moo xam la loo xam dañuy wéet ak yow nga wax ñu ko loolu lañuy tëgg xam ne lii jëmale askan wi kanam loolu rek la mën a doon ndax luñ ko xam-xam wala luñ leen bëgg-bëgg yéen la yàlla may loo xamante ni yéen ñu gën a xam ndax suba ba ngoon ñun ngeen seen suñu soxla ngeen nekk suba ba ngoon yéen a ngi gëstu ci li ñuy jëmale kanam te du seen intérêt bopp kon lépp lu ngeen mën lu ngeen ñu mën di wax rek doon na loo xam ne moom moo ñuy jariñ kon sëñ bi maa ngi lay sant bu baax di sant njaboot gépp di leen nuyu ñoom ñëpp di la nuyu ñëpp waaw maa leen ñëpp bari naa ci ay xarit ki kóllëre da gën yàlla ci biir kër gi loolu yàlla def na ko nuyu Baye si démb rek gis naa ko ñu ngi waxtaanee xew-xew bi fi war a am ci mois de septembre bi di félicité ci ndax boo defaralee diine lu day noonu defaral doomu saalum saalum yi lu day noonu du sax doomu saalum saalum rek waaye képp kuy doomu aadama ñëw fii loolu mën na laa jariñ kon bu ñu toogee Fissel war nañ cee bëgg war nañ koo wax war nañ koo wane ndax jëf ju mel noonu loolu mooy jëf yi nga xam ni moom moo yokk senegal waaye jëf yi ñuy gën a jubale kon ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax di bëgg lool ci ñëw fii ci sawet pour déglu la pour waxtaan ak yow loo ñu wax rek ci la ñuy tënku te amuñu sikki sàkk loo ñu ñaanal yàlla dina ko def jërëjëf. bismillah salaamaaleykum wa wa barakaatu. nit ñu tedd ñi moo ànd ak ñëpp dëgg-dëgg tey Médina tàkkusaanu feet la am ndax yàlla dajale na fi nit ñu tedd ñu ci Sénégal yëpp yàlla tànnal nañu fa fu nekk kilifa ku na yàlla woon leen fi lu dal seen xol yal yàlla dégg loo leen fi itam lu dal seen xol Médina ay sénégalais ñoo fi dëkk comme sénégalais yëpp lu sénégalais bëgg pour Sénégal loolu la bëgg lu Sénégal am pour Sénégal ci loolu lay la nga am euh, te Sénégal dëgg-dëgg yàlla moo ko baaxal wax nga dama dem Cameroun def na du man maa fa dem dëgg la su ma jéem a fa présenté waaye Sénégal moo fa dem taarixu Sénégal moo fa dem melukaanu Sénégal ci diine moo fa dem te moo fa demoon ba fa Cheikh Ibrahima njëkkee dem ñoom ñëpp ñu fekk si ko Cheikh ba muy dem Sénégal sénégalais moo fa demoon lim xam Sénégal loolu la yóbbuwoon présenté ko ci àddina bi àddina bi yëpp nangu ko donc bon Sénégal réew mu kawe la réew mu baax la nit ñu kawe nit ñu baax. ñoom la fi yàlla dëkkal yal nañu yàlla gën a may ñu gën a xam suñu Sénégal gi ak kawewaayam ci waxuma ci ñun rek waaye ci biti àddina bi boo génnee rek Sénégal am nga boo xam ne da nga ko doon noonu rek da ngaa rek ne am ndax yàllaa ko mayee noonu muy taarixu Sénégal ak liggéeyu Sénégal du léegi rek la àddina yi njëkk a gis Sénégal Cheikh Omar gis nañ ko Nigéria bu yàgg yàgg te Sénégal la bàyyee ko Cheikh euh, Dan Fodio moom itamit fii la nekkoon Sénégal yàgg nañ koo gis ci mission yoo xam ne mission yàlla la religion defar yar yëkkati loolu mooy Sénégal waxtu wu nekk nag loolu mi ngi am Sénégal boo nekkee ci biir senegal parce que fi nga dëkk doo gis liy xew waaye boo demee ci biti rek di nga xam ne Sénégal nga bi ko yàlla defal teraanga diine teraanga xam-xam teraanga bëgg nit ñi teraanga nit ñi bugg la loolu yëpp yàlla may na ko Sénégal te Sénégal lay bàyyi ko dem feneen Sénégal tàllalatul loxoom kenn pour ne ko dolli diine tàllalu ko Arabie Saoudite mm-hmm. dollalu ko feneen suñ diine bi am ñoon ñoo koy jàngale ci biti waaye amatuñ fu ñuy jàngee ji diine ndax alhamdulilah mokk na boo boo sax xam nga diine mm-hmm. asamaan nag boo jàngee yàlla dina la àggali ci noonu sa maam tànnoon démb pour yàlla yàlla nee na boo ma tànnee ma tànn la te tànn boo xasee tànn dootu dellu gannaaw. Mm-hmm. Hmm? bon ñi fi nekk ñëpp ci ay nit ñu kawe lañ bàyyi ci ay nit ñu baax lañ bàyyeekoo ci ay nit ñu yëkkati lañ bàyyi ko nit ku yëkkatiku kawe nag jóge fu yëkkatiku du mun lu dul waxtu wu nekk rek mu am am coonooy bëgg a dolli am coonooy bëgg a yëkkatiwaat. Hmm. ah loolu yëpp ci ngeen nekk nii hmm. bëgg nañoo dolli hmm. bëgg nañoo yëkkatiwaat bëgg nañoo xamal suñ dëkkandoo yi ak Sénégal ak fudu Sénégal ne boo liggéeyee dinga nga dolli boo liggéeyee di nga dolli liggéeyee yàlla dina barkeel seen liggéey boo boo liggéeyee di nga def li nga xam ne boo tëddee sa xol dafay dafay daal te Sénégal xam na ko wax léegi mu ne xol yu baax la yàlla defe naa monsieur le ministre moo ko wax ay xol yu sell ñoo fi nekk xol yu baax ku nekk yàlla yàlla fay sa xol euh, te Sénégalais bu nekk biir xolam di ci nekk yàlla rek a xam xeebu waaye li koy firi mooy li muy def ah lii jotaay bii tey mooy firi lu nekk ci suñu xol yi mooy ne Sénégal itteel nañu te ñun ñëpp la itteel Sénégal bëgg nañ mu dooleeku te ñun ñëpp la itteel donc bon lépp loo xam ne dina àggale ci kawe ak yëkkatiku ñun ñëpp ñu ànd ci ak suñu xol ak suñuy ñaan ñu ngi teg suñu tànk fi ko war a teg di des mi ci loxo yàlla yal na yàlla àggali ko ñu ngi gërëm mbooloo mu tedd mi yëpp Abdou Latif Coulibaly euh, Zahra Zahra sama doom yow dama lay pini fii euh, euh, ñëpp looy wax ak loo wax nit ñu tedd nit ñu baax si Aliou Sall nit ñu kawe nit ñu yëkkatiku li leen war mooy ut lu yëkkatiku moo tax ci nga nekk boo yëkkatikoo dootoo ut lu ndaw da ca kaw rek ngay ut hmm? moo tax nit ñu baax ñëpp sonn nañ waaye terewul seen coono demul ngelaw ah àddina bi yëpp yëg nañ ko ba ma demee ba Cameroon ay junne nit ne dañuy tuub am ñeneen ñu xëcc fekk sonn naa mënatuma dara ñu ne naa ñëw mënatuma may leen maa ngi dem dinaa del siwaat loolu yëpp Sénégal la du man Sénégal la parce que Sénégal la dëkk euh, Sénégal laa màggee ci laa jàngee ci laa xamee ci laa pratiqué ci laa nangam ak nangam ak nangam keneen jàngalu ma ku dul Sénégal sama baay moo ma jàngal Sénégalais la donc lu ma xam rek Sénégal laa ko xam ne ci sama baay donc bu ma demee suma baay Sénégalais la li ma jàngal jëlee ko ci Sénégal ak ci Sénégalais yi ba ma demee loolu rek laay répété foo mënti nekk su ko defee nag dangay gis ne yaa ngi wax loo xam ne yow da ngay foog ne oyof na waaye ñii lay déglu xam ne ne yaa ngi wax lu kawe yaa ngi wax lu yëkkati ko yaa ngi wax lu mën a soppi nit ah bon jotaay bu tedd bi maa ngi ñaan yàlla ni ñu yàlla mayee jotaay bu tedd bi yal yàlla continuer di ñu may jotaay yu tedd jotaay bu tedd bi nit ñu rafet ñii ñëw hmm. ak nit ku tedd gii jiite ko yàlla nañu yàlla di yàlla may jotaay yu mel noonu nga di ko jiite ñu ànd ñun ñëpp pour liggéeyal li nga xam ne mooy suñ ndam suñ ndam Sénégal dëgg-dëgg lislaam mënu cee génn mënu génn alors foog mu nekk ci biir d'accord fi mu ne monsieur si wax na fi mu ne science développé na àgg na fu nekk te sérieux wuñu dañuy jéem a tromper nit ñi ah? di duggee ci nit ñi nu nekk ba nga xam ne boo oyofee bopp yàlla mën na laa hmm? waaye nag boo xamee ne lii man la l'islam bii man la parce que suma maam la suma maami maam la suma maami maam la donc ma man la man nag du ko sumi ko may keneen dama koy solal sama bopp euh, ci kaw loolu ñu ngi ñaan Sénégal yëpp ñu ngi ñaan monsieur le ministre ñu ngi ñaan pouvoir ak euh, ak euh, opposition ñoom ñëpp ñoo xam ne ñoom Sénégal lañ am Sénégal rek moo fi nekk hmm? ñoom ñëpp dañoo bugg pour Sénégal développé wu bon ñu ngi leen di ñaan ñoom ñëpp ñu ànd ci ndimbalante ci ci rafet ku nekk rafet sa njort rafetal sa njort ci sa morom xam ne lu baax rek lañ bëgg yal nañu si yàlla àggale yal nañu yàlla dolli yar parce que yaradiku am na Sénégal bu baax a baax boo demee ci yeneen réew yi da nga xam ne yaradiku am na fi bu baax a baax ñu ngi ñaan yàlla yal nañu yàlla may yar delloo ñu ci yar yu kawe yi nga xam ne ci lañuy mën a tabaxee tabax yu kawe ñu ngi gërëm monsieur le ministre encore beneen yoon di wax ne duñ la fàtte ah? di la wax ne kenn nga ci ñun ci waa Mérina lu lu lu ñu bëggal waa Mérina rek yaa ciy jiitu waaw ah, yàlla la ci yàlla taxawal parce que yaa ñu fare foo xam ne ñun mënuñu faa fare yaa ñu fare ci politique bi ci nangam ak nangam ak nangam donc voilà yow la ah? salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. abonné leen ci seen chen malben bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi.